posé officiel mooy six personnes yi nga xam ni géré côté administratif ak service yi nga xam c'est en dehors du label mooy location de voiture yi ak assurance yi ak vente mais ci Wally xam na ma Wally je pense que bu muy ñëw buy ñëw Europe si date yu bëri yu mu fa def j'étais dedans donc man nekkuma ci yooyu difficulté boobu amu ci xëy na artistes yi amuñu problème waykat yi amuñu problème ñeneen entre eux ñoo am problème pour dire la vérité am moo tax ma ne il faut qu'on arrête amalgame yi ak wax yoo xam ne amul benn njariñ amul benn njariñ xam nga fii kenn du fi buur buur jeex na fi xam nga ñun ñëpp a gëm seen bopp waaw su ma bëggoon nag euh, ne artistes amuñu benn problème Pape Diouf collaboré moom amul benn problème parce que maa ngi moom du musique moo ñu boole ah Wally aussi mun naa ni tamit du musique boolewuñu man sama papa c'est un producteur sama papa produire na ay événements yoo xam ne euh, sunu euh, euh, Thione Seck tey muy monument. ci musique di ko yàlla yërëm ko. sama papa tey dafa nokk ay événement ba ci Youssou Ndour. temps étoile de étoile de Dakar. ak ay làbba soose yëpp. donc ñun ci laa juddoo. donc amuñu artiste waykat amul problème du moment gis na liggéeykat rek day liggéey mais ñit ñi leen àndal ñi ànd ak ñoom ñoo leen bàyyil ñu liggéey. Maintenant, on a un contrat bien ficelé je pense que donc dina respecter mm-hmm. et en tant que producteur je vais respecter mon engagement